Patisen vous offre votre seen bër bi gën ci seen mburu ak seen bépp togg moo leen di ñaanal kooru jàmm. bër Adja mëne fu ne. <laughs> maki karam moy hari tu jakaram moy hari tu jakaram aja fa aja aja aja no no na aja écoute ami li nga def bul ko defati premièrement nga dem te secondo nga à 3 heures du matin pour une fillette comme toi Hein? ne me regarde pas ne me regarde pas aussi ma chérie Yo, li ma wax oh ma chérie bébé yow tamit mis dire joy c'est juste pour ton bien écoute écoute vraiment si tu pleures tu vas me faire de la peine hein. oh là là viens là viens là viens je t'en prie s'il te plaît s'il te plaît calme-toi ding s'il te plaît langue nga langue lan pour te calmer qu'est-ce que tu veux dis-moi téléphone téléphone ah yow téléphone nga chantage téléphone ok ok bon téléphone. <laughs> je comprends C'est X mais maintenant tu te calmes d'accord calme-toi les vite. Ah. oh là là là là. est là. Il est là, Il est là. Il est salaamaaleykum. aleykoum. salaam. na nga def sëñ bi. jàmm rek. ñu de xaar la ñu bëggoon. xaar waaw. xaar pour ngénte wala. non pour anniversaire. anniversaire rek kat. ah xam nga rek alaaji bi. <laughs> yow de am nga maana. am nga ma. Ah. kii mooy yee laaj na ndax anniversaire la. Hmm. lii dafa ëpp xaar dafa ëpp. Ah, ay mami xam nga nag sa papa moom vraiment il fait tout pour nous. ah hein? lii moom c'est le minimum. Hmm? on lui fait plaisir. ah dëgg la de. naal bi. Ah. waaw bii ñaata. di jëlal deux cent. deux cent ah doo ko wàññi. de cent cinquante baaxul. defal deux cent. ah ko cent cinquante. waaw jël. ah waaw jëlal. ah waaw baax na waaw de. sama jëkkër nga koy defal yi nga ko defal ah. waaw koor kenn duma rey ma boole xiif ak biir bu métti koor kenn duma rey ma ma boole biir buy métteeg woor ko sax waa ngóor yow lu la teree woor sama biir bi mooy métti ci suba ba léegi. dana métti métteeti jaxase rek. njóor nit day xam suur naa xamoo delloo xamoo dara jaxase rek luñ la jox nga lekk ah maax mooy dagg seex rek. papa dañ see bëgg xanaa. waa baax na. damaa wàcc si suba sama umpaañ defaral ma lii kay papa. waa de de nga wàccu di nga wàccu wàccooti xamoo suur naa xamoo dara yow mburu mu ami bët sax man nga ko lekk mbur nit day dallu Halo? Oui, René. René, mau ngajak jaga si parian anu? Wah. Ini dem, aku mau minum kopi. Ya? lor xalé bi ah Adja lay wax nim bëgg dafa euh, ngor mi anduma ci ngor xamna ko biir bi baxul biir boo xamanteni ñebbi rek nga xam ak ak ak ak ak nga bëgg ko sol solution lolu man tane nit dang koy tamal luy da nga amul lolu changer lek amul. amna changer lek rawti rawatina Ndakaaru. waaw ah, baax na Adja bàyyi ko ak ngor mu toppatoo ko domam la. ci yow yow dama lay dama la bërgal ndax ciosan mo ne ko tu seram bi du mbay ma du du cham ga du fecc ma fecc moom pare ci yow ak li nga def dekk bi lepp ci mu fecc lan raaya bu ne am nga ko fa yow am nga na anta pend ga anta pend kan doomu saasum njaay anta pend anta pend domu ñima juuf la ci ah. gan fay la doomu saasum njaay eh, ndeysan wax na deug ndëm ci yalla wax la nga naan woon ma la ma ngi fi te la dakk fatali ko deug wax deug ci sa waaji ku rek ba nga ne sarax ci géew bu géwél tëgg. maag yow la nga. graj gij graj gij gij gij gij gij gis nga déjà a ngi du gij gij gij gij. lan la gij gij gij gij jax. gij jax nga gij jax jax xam nga yow nga ba nga ne ba <laughs> rek nga sa ba ci ci na ko rajax. ci ci ah be. bii ne ko rajax sa loxo yi da nga koy wund rajax ba pare sa bopp bi doo sànni rek da ngay piqué piqué rajax coppeti coppeti bi cof ca bii ne ko rajax bi ci bii ne ko rajax piquel